nga waxtaan wi euh, madame la présidente Aminata Touré est-ce que yaa ngi dégg. waaw ñu ngi lay dalal jàmm madame la présidente euh, dañu gis ni conseil économique sociale bi euh, ni ñu ko waxee installation bi président Idrissa Seck tudd na ñëpp tudd na la sax ci installation bi. sa teewaay foofu lu mënoon ñàkk la wala lu mënoon a am la tey. Euh, de toute façon conseil économique euh, institution étatique la day continuer di di fonctionner euh, ni ma ko waxee woon juru passation wu bi nga xam ne bi may delloo caabi yi doonoon ba peut-être moom bu fa woon ma gën koo mën a faram-fàcceel li nga xam ne moom la ñu fa def ndax li ñu war a xam nag mooy administration dafa évoluer hein du yàgg a yàgg a yàgg lépp nga foofu système bi dañ ko informatiser Euh, daanaka euh, loo ubbi rek léegi mu ngi ci mu ngi ci informatique boo xam ne bii moom la ñu ko installé euh, waaye nag informatique moom du doxal boppam du waxal boppam foog ngeen toog ak ñi nga xam ne ñoo ko doon liggéey ci jamono ji ñuy waxee ki nga xam ne mooy suma ancien directeur administratif et financier ma nga fa di def passation ak directeur administratif et financier bu bees bi ci jamono ji ñuy waxee loolu nag waroon nañ ko mën a def ca njëlbeen waaye nag Euh, malheureusement dañu leen a joxoon note ne leen mënatuñu dugg ci conseil bi waaye loolu jàll nañ ko ndax euh, conseil économique social et environnemental du institution politique institution administrative la boo xam ne day xelal état euh, war nañoo mën a même bu fekkee ni équipe bu bees a ñëw ñi nga xam ne ñoo fi newoon ñu expliqué ñu bees ñi ñi nga xam ne moom la ñuy doxale document yëpp ñu ngi sur place nouveau président bi keroog ñu may dam bu ñëwoon ko ko wan parce que lépp a waaye lépp nag informatique ci ëpp euh, rapport yaa nga fa ni administration bi doxee foofu ba tey amuñu ci benn problème ñu xarañ ñoo fa nekk euh, ñoom ñëpp euh, ci jamono ji ñuy waxee ñu ngi disponible pour vraiment expliquer ni muy dem foofu moom amul benn problème parce que institution bu existé depuis mille neuf cent soixante comme ñu ngi soo a mën a dellu si waat ndax dañ leen ne woon mënuñoo mënuñoo mënuñoo dugg ci bâtiment bi bu ko defee passation moom day xaw a xaw a jafe waaye Euh, li leer te Sénégalais yi war war koo xam lépp nga ko euh, liggéey yi dafa am na euh, liggéey bokkul ak politique dañ jël politique bi tekkee ko nale jël xool liggéey bi ni ñu koy defee kon tey au moment bi ñuy wax nii ñaari daaf yaa ngi def passation waroon nañ koo def bu yàgg waaye comme fichier daanaka bañ yekkee dañ leen ne mun leen a dugg tey la suñu daaf bi nga xam ne moo doon liggéey ak mën a mën a yegg si Euh, dina joxe information yi parce que yëpp a ngi ci ordinateur mais di affaire ordinateur la dootul ay kayit yoo xam ne euh, maanaam day ci feeral yooyu loolu nag euh, ko doon loo xam ne lii man loolu laa xam ci wax liggéey ndax dama yàgg liggéey dama mos ci liggéey kon kooku amul benn problème boo xam ne bii war na faa mën a nekk wala liggéey bi ñuy def sax dañ koo bokk ak conseil yi nga xam ne ñoo ko nekk benn juróom di li nga xam ne conseil ci li mu wax précisément madame la présidente Aminata Touré euh, sa successeur Idriss Seck wax ni passation bi mu amee li tax ma dekkale kat man la ñu ma jox ka fi jóge bindul la mu fi fekkoon bindul li mu fi bàyyi signewul loolu mooy ay baatam mberteel la ci yow wala da nga yaakaar ni décalage la rek ci temps bi ci ci nga waroon koo def. waaw naa non non lépp lépp def nañ état des lieux. Euh, ni nga xam ne noonu laay defee woon conseil bi noonu laa ko defee diggante bi lu ci bëri dañ ko informatiser informatiser mooy nga jël information def ko ci machine waaye machine bi mënu la waxal boppam bu fekkee ne ñi daan liggéey ak man dañ leen ne mënatu leen a dugg ci ah mais doo gis ku la expliqué loolu it am na solo mais procédure dañu ko topp ba fi mu war a yem parce que foofu aussi amoon na su ñuy wax euh, agent comptable public ki nga xam ne mooy représenté ministère des finances euh, moom mooy topp wóor mu wóor ko ne xaalis bi nga xam ne moom la ñu utilisé ma nga fa moom bi mu defee passation am ndax ba mu fa jógee yàggul këyit yu leer a nga fa waaye nag balaa nga naan naam ne fa léegi nag comme comprendre nañu ne fokk ñooñu ñëw waxtaan ak équipe bu bees bi dinañ am information yi waaye da ñëw rek mais na ñëpp dem déedéet du noonu administration dafa am na ñuy liggéey boo xoolee muy dëkk yu ne administration ba fa nekkoon ak sa cadre ya fa nekkoon avant ñuy dem da nga leen di may ñu toog ak yow say nit ñu bees ñu expliqué leen ni ñuy defee liggéey waaye ni ma la ko dañuy euh, ñëw ñu ne leen non non non yéen da ngeen a war a dem toog seen kër yi na sax dugg ci biir conseil ah boo ñëwee da président bu bees bi bu ñëwoon toog man loolu mënoon a rafet dayoo kon ma expliqué ko bu baax a baax euh, ni mbir mi demee parce que moom nag maintenant xaw naa gëj a liggéey ci diggante bi liggéey dafa dafa évolué euh, voilà loolu noonu lañ ko war a jàppee teg politique bi boo xam ne bi nga am solo ci xalaat ci wàllu waaye nag liggéey dafa am yoon liggéey dafa am na ñu koy jaarale euh, ba nga xam ne bi yow boo ñëwee bees comme nga toog ñu expliqué la ñu mu demee surtout bu fekkee ne gëj ngaa liggéey ñu war na li nga xam ne nii noonu lay jaare waaye ñu ne war a waxal bu fekkee e kii génn ah, ba muy génn façon yéenee dalal la wax expliqué na la li moo ko gisu la ña nga xam ne ñoo doon liggéey ak moom aussi ñu ne noonu bu doon yegg si bu ah, bu ko defee nag euh, teel a fax day xaw a jafe waaye waxtu wi may waxanee ak yow nii ah woowaat nañ ki nga xam ne moo doon directeur administratif et financier wax lay def passation ku bees euh, waaye li rek mooy euh, institution bi li sa wàll def nga ko parce que euh, wax ji leer na moom li mu wax mooy ki ko wutu waxul lu mu fi fekkoon waxul lu mu fi bàyyi donc yow lay wax est-ce que précisément yow sa passation yaakaar nga ne lépp mataloon nga ko pour jox ko la ngay am déet ah lépp nga fa lépp nga fa waaye nag comme gisuma ko moom ku jox ko ko eh, moo doon gën bu ñu ma jox ko ko expliqué ko lu mu ci comprendre expliqué ko ko ba mu ne eh, looloo tax ñuy def passation waaye jàppoon na ni amul solo waaye loolu sax amuloon solo bu fekkoon ne ñi nga xam ne ñoom laa ñoom laa doon liggéeyal newuñu leen woon bu leen dugg ci ci ci ci conseil bi ba teg fa ay gendarme ne leen waru leen a war a yegg loolu erreur la ñoom ay ay fonctionnaire rek sax la ñu dañuy dañ ko ñëw rek ñu liggéeyal la comme léegi loolu am na moom dinañu expliquer ki nga xam ne moo yore mbiru administration ak finance expliquer ko ni ordinateur yi di fonctionner logiciel ba fa nekk bu ko defee ñoom ñu continuer liggéey man bi ma ñëwee équipe bi ma fa fekkoon dama toog liggéey ñoom dama toog liggéey ñoom euh, ba ñu jox ma dossier yi dal di ko suñu ko waaye bu ñu jaxasee politique ak administration euh, loolu du intérêt askan wi du intérêt réew Euh, kon nañu dépassé question politique yi xool liggéey du muy du muy doxee liggéey nag dafay am def yaa nga yam sëñ bi nag moom naa moom gën naa liggéey waaye ci diggante bi procédure yaa nga fa administration bi lépp nga fa mais noonu la ñu doxalee conseil bi ba mën a am résultat yi nga xam ne am nañu ci kooku moom amul amul lenn luñ ci naatable amul information bu mu fa soxla ma nga fa euh, donte gisuma parce que ñëwul woon waaye ku mu ko fa laaj man nga ko parce que yëpp nag ordinateur yi la ñuy la la ñuy léegi ci ordinateur la ñuy liggéeyee léegi am na am ordinateur boo ko am ko bu fekkee ne ka yor tom ba nee nga ko bu bul am mais doo mën a joxe information waaye yàlla def na li ngay def seen passation tey euh, te dina continuer politique moom nañu ko tegee tegenale waaye liggéey dafa am sàq dafa am yoon muy Amérique muy France muy Sénégal muy Burkina Faso dafa am koy tërale ñu tuddee ko procédure administrative benn problème information yëpp nga man dama yàgg liggéey dama liggéey ci yoo xam ne xam nga ne dañ lay say tu à tout mama tout moment dañ lay saytu voilà kon kooku euh, vraiment du du ma koo xam ne kii vraiment dañ lay jàngal liggéey ci at yi ma ak ci expérience ma am waaye nag day fekk nag ki nga xam ne dañ ko war a jox information mu nangoo ñëw <laughs> ba noppi bàyyi ñi nga xam ne ñoo doon liggéey ñëw dal di jox information yi ñu bees ñi nga xam ne ñooy ñëw tey def naa ne euh, loolu am tey may wax ak yow nii nii nii nii nii suma mën a def passation ak son nouveau ak le nouveau DAF loolu nag waroon nañ euh, am nga loolu ñëw bàyyi politique bi li nga xam ne mooy administration nga xam ne moo soxal askan bi est am nga yëg-yëg est-ce am nga yëg-yëg personnel ci ni ko président Idrissa Seck defee ci bésu tey bi ci dugg ci détails yi ci bàyyiwoo fi li bàyyiwoo fi li bàyyiwoo fi li moo tax defu ko wala yëngalu la. non dama jàpp ne yooyu yooyu yëpp politique euh, xam nga yëkkati sa bopp bàyyi politique bi da ngay liggéey ci toll nii li ñuy xaar mooy liggéey jël politique bi teg ko ne la moom bu ñëwoon ni ma ko waxee toog ak man ma expliqué ko ko dafa gëj a liggéey nag loolooy problème liggéey naa liggéey liggéey léegi dootul wax rek da ngay ñëw toog. xool kayit yi xool ni nga war a plani defee planification xool ni nga war a liggéeyal bu ko defee mu jaar yoon loolu bu fekkoon ne toog nag man danaa ko wax mais na jël enfin politique bi nañ ko tege na leen institution de l'État et de la République la ña fa toog du ñu ay politiciens cent vingt membres yi ñu ci bëri ay experts la ñu ci seen domaine kon euh, du politique ay doxal conseil économique et social foofa xalaat ak xam-xam moo koy doxal kon nañ jël politique ba teg ko na leen euh, parce que ñun ñëpp mën nañoo politique waaye da dul jamono ji dañuy def def différence ak li politique xam ne mooy gestion d'une institution de l'État ñu am statut homme ou femme d'État loolu dafa am solo euh, lii sax bëgguma ci war wax waaye comme dañ ma interpellé euh, jaar ci suma tuur il fallait ma réagir waaye yàlla xam na ne vraiment euh, bëggoon naa jël recul ci loo xam ne nii géré woon naa ko keneen ñëw di ko continuer ndax état noonu lay def dadul moment boo xam ne bii moom dinañu ko yónnee ñëpp ñi nga xam ne ñi ñoo doon liggéey euh, bu ñu leen bàyyee ñu ñëw rek ñu expliqué ñuy liggéey ku bi di liggéey nag aussi loolu lay problème bi da ngay defe ne ko nga bàyyi woon liggéey ci at ak ñaar fa la àddina toll déedéet léegi ci ay ordinateur la ñuy liggéey ci ay logiciel la ñuy liggéey mais loolu yëpp foog nga toog ñu expliqué lu waaw bu ñëwoon keroog kon ma expliqué ko ko waaye ñëwutoon euh, léegi nag euh, ñi nga xam ne ñoo ne woon ak man vraiment maa ngi leen di encouragé ñoom ñëpp bu ñu leen wooyee ñu dem def wala passation bi ni mu amee nii ni ma ko waxee bu ko defee institution bi continuer euh, ñu génn ci politique bi ndax foofu nag ñu am solo ñoo ko toog ñoo xam ne seen xam-xam màccee na ci mbay ci napp ci médecine ci architecture euh, avocat yaa nga fa notaire yaa nga fa xaw xam-xam lañ koy discuter discuter wuñ ko politique politique nag bu ñu génnee euh, loolu war nañ koo mën a defal. c'est vrai que c'est bésu passation une dernière chose bésu passation newoon nga. bësu du bësu politique jotaay bi en dépit de solennité wu bës bi tey da nga yaakaar ni ci discours bi politique moo ko laloon ak xëy na ñi fa nekkoon ñoo bokk boor ndax jusqu'à plus ample yéen a bokk liggéey ak président de la république dafa am lu la ci froissé ci li fi xew tey. pas du tout pas du tout xam am lu ma ciy wax waaye toujours euh, suñu mbokk yi ñu li nga xam ne mooy information. ndax mënumaa man liggéey Nations Unies pendant vingt cinq ans euh, xam luy procédure internationale o procédure nationale ñëw fii au niveau de l' état du Sénégal nekk si de la justice nekk si premier ministre GRFI pendant seize mois une institution que du ma xam luy procédure du ma xam luy passation loolu xel mënu ko nangu waaye nag à l'impossible luñ ne tamit ki nga war a defal passation bu ñëwul toog ah waaw xaar ba muy jël euh, fonction de fekk ma nga xam ne ma nga taxawoon kooku aussi euh, ñu bàyyi ci xel xam ne passation lu normal la ci administration dafay yow nga expliquer procédure yu bees yi euh, jox ko ki nga xam ne mooy ñëw bu ñëwee dal di continuer aw ma ci benn benn benn benn problème mais buggoon bëggoon expliquer aussi suñu askan yi ñu xam lu ñuy wax ndax quand même su ma su ma su ma su ma honneur wu liggéeykat laa yor voilà yàgg di liggéey te defe naa nekk xam naa ni ñuy liggéey amoon na euh, mais il faut aussi que désormais mais recommandation bi may def président bu bees bi mooy na jël politique bàyyi ko ci bunt bi ñu ñëwee ci biir conseil bi euh, def liggéey yi nga xam ne am solo loo a yi nga xam ne ci la toll nga xam ne crise am na crise mondiale suñu xale yi nga xam ne ñu ngi perdre espoir di leen ci ndox mi ñooñu yëpp dañ daan war a utal solution ci wàllu xalaat loolu ci laa koy encouragé pour mu def ci euh, kéemtulaayu kàddu jël politique ba teg ko naa liggéey waaye nag bu wutee ay ak liggéey ak ña fa ne euh, dina war a mën a ah, man noonu laa